Bienvenue sur Salam Vision.

suñu góor yi nekk ci bâche bi tamit ñu ngi leen di nuyu ñu képp ku fi teew rek nuyu nañ la sant nañ la sa nuyu bâche yu jigéen ñi tamit jigéen ñi ci kaw ba ci suuf nuyu naa leen yéen tamit di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla koor gi ñu woor nii yàlla nañ ko yàlla nangu te yàlla bu mu nekk suñu mujjëtan koor te itamit mbas mii suñu borom jële ko fi ñi ci jógee ñi ci jógee itamit yàlla na leen yàlla xare àjjana ñi mu daloon yàlla na leen ñi mu dal yàlla na leen yàlla saafara ñi mu dalagul yàlla bu mu leen dal ñuy ñaan yàlla yàlla sàmm ñu ñun ñëpp may ñu koor jàmm salaam. amiin yaa yaa sayyidina macha allah ko defee ñu woo yaa Sayda Fatoumata Diallo yaa Sayda bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ci seen tur ak seen sant di leen ñaanal kooru jàmm ak mbokk yi tey na ma fas waxtaan ak yéen ci lu am solo ma fas waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni nii mooy tarbiya di yar di éducation te seetlu nañ ni que jamono ji nekk na lu manqué ci dëkk bi seetlu nañ ni que jamono ji yar manqué na ci xale yu bëri ba tax na waykatu arab bi nee na laysa yatiimu allazi xad maata waaliduhu innamal yatiimu yatiimul xelmi wal adab mu ni jirim bi ki nga xamante ni nii dafa ñàkk yi dafa ñàkk paapaan waaye jirim mooy ki nga xamante ni nii dafa ñàkk xel teg ci ñàkk yar ñu bàyyi xel ci wax jooju waaye part de responsabilité bi ci gën a jamono ji moo ngi ci parents yi parents yu bëri léegi daal ñu seen doom yi jamono jii li leen gën a soxal moom ñu doon ay waajur yu baax que ñu am ay doom bu baax ñu déggandoo ci wax ji que ni parents yu bëri jàpp nañ ni bu ñu jëlee seeni doom dugal leen ci ay école yu cher di leen solo yére yu cher ba ñëpp naan ah diw mu ngi frais ci doomam bi yaakaar na ne fa la yar bi yam alors que yar kase xale kenn ko bàyyi ak sa bopp da ngay toog waxtaan ak moom xamal ko àddina xamal ko diineem ba mu màggee mu mën a mat nekk kilifa te yonent bi daan na faral di wax naan ñii ñu ay sàmm ngeen te bés dina ñëw ngeen jàkkaarloo ak seen borom mu laaj leen ana ma leen dénkoon ak nan ngeen ko doon sàmmee kon nag bàyyi xel ci woon tuuti da si gis waajur yu bëri yoo xamante ni nii. dañuy seetaan seen doom ba ñu tëlee ba nga ne leen waaw loo mënee seetaan nii ñu ne la ah mënul ma ko daan te yéen suñuy waajur seen waajur mënoo leen ñun ba ngeen doon dara tey kon nag bu leen mujjee puso bi ba pare réeral ko kon nag maa ngi ñaax sama bopp di ñaax sama morom di leen ñaax yéen suñuy waajur ngeen gën ñu jàppale ci yàlla ndax yàlla mooy lépp te mooy baalu société alhamdulilahi rabbil alamin

ñu woo yaa Seyda Aminata Fofana tey nag dañ fi ñëwoon indi leen leen ci sartu tuub ko suuruutu dawbati sartu tuub an nadamu mooy nga rekk alaamaa faata ci bàkkaar yi la wees ko niyeetu nga fas yéene ci sa xol ne wala yaxuuta dootul ca dellu illa ci boobule bàkkaar fii ma bàkkeer ci li des min umrihi mu ne dafa bëgg a tuub mu ne am na benn sëriñ bu mu doon dégg ci dëkk sàngam be xaar ma dem fa laaj ko su tuubee yàlla dina ma ko jéggal ci mu defal ay bagaasam gàddu jaaseem ne day dem pour bi mu ñëwee ba ci waa ji mu nuyoo mu fay mu ne ko man de damaa rey lu toll quatre-vingt-dix-neuf personnes ma di la laaj ndax su ma tuubee yàlla dina ko jéggal mu ne ko laa benn bakkan sax de boo ko faatee yàlla dina ko jéggal safara la lay jël mu ne ko kon kay xaaral ma matale ko benn yoon muy téeméer mu dagg bopp waajoo ji noonu la faatee waaj waaj mu ñibbiwaat këram mu demaat dem ba bis ñëw xelam del mu ne dafa bëgg a

mu ne ma benn bakkan sax boo ko fàttee yàlla dina ko jéggal ndax kon kay ma ko benn yoon muy téeméer loolu laa ko fàttee mu ne ko yow nag mu ne ko waaw yow kay koy tuub yàlla dina ko jéggal waaye nag ci kaw nga xam dem dëkk boo xam ne mu soofaa mooy yàlla nga tuub ko ci misaal waaye ñu fii ci mu ne ah Jurbel de mu ne ah Jurbel de mosuma faa mooy yàlla xaar ma dem fa tuub fa ci loolu mu defal ay ne ma koy dem tuubi Jurbel bi mu demee ba tolloo cinquante rek ci la yàlla ñëwee ak ndogalam faat waa bi mu faatee waa ji malaaka àjjana yi ñëw taxaw malaaka safara yi ñëw taxaw malaaka àjjana yi malaaka safara yéen lu ngeen fii def kii ngeen xam ne dafa def bàkkaar mooy yàlla ba faat ci lii lan ngeen fii def malaaka àjjana yi ne ko yéen dañuy laaj lan ngeen fii def ndax kii dafa jógoon ngir tuub ci noonu coow li bari lool yàlla suñu borom yabal Jibril ne ko nga àtte Jibril ñëw ne suñu borom ne ngeen natt bu fekkee ne diggante Dakar gi mu jógee ak cinquante moo gën a jege ngeen natt bu fekkee ne diggante cinquante ak Jurbel moo gën a jege ngeen xool ci noonu bi ñu nattee diggante cinquante ak Jurbel gën a jege allahu akbar ndege foofu boobee yàlla lem suuf kon mbokk yi li ñu ciy jàngee mooy yàlla ku mu nata liggéey loo ku ne du la fay mbokk yi lii lañ leen fi indiloon lépp lu ci jóg ci buur bi subhaanahu wa la lépp lu ci dëng ci ñun ñu gàtt xam-xam yii la di sant di gërëm suñu ustaas mi nga xam ne lépp lu nekk si ñun moo ko ci def di sant waa daara di leen baalu ak di leen baal ak di ko ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa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 wa rahmatullahi taala wa tey nag maa ngi leen indi fukki dénkaane yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon xeetam auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim ashrul wasaya li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fukki ndénkaan yi bi sallallahu alayhi wa joxoon xeetam dénk leen ko muy ay ndénkaan yu am solo ay dénkaan yi nga xamante ni ku ci nekk war nga ci jànge lu ku ci nekk war nga cee gis sa bopp ma ñëw ci dénkaan suñu yonent bi neen sa ndaw liggéeyal ci yàlla balaa màgget sa temps bi ci yàlla balaa ñàkk temps bi ñëw sa am bi liggéeyal ci yàlla balaa ñàkk di ñëw ndax nit amoon na lu dul jeex tey mu ñàkk sa wér bi liggéey ci yàlla balaa wér di di wér dee ngi ñëw di bis ngi ñëw loo def dañ la defal su dund gi liggéey ci yàlla balaa bee di ñëw ku lay jaay doole xaar ci yàlla suñu borom ndax yàlla rek a am doole bis ngi ñëw sàll ay yitteel ba mu fees takk say loxo takk say tànk yóbbu la ba ci armée bi suul la ci suuf si nit a ngi jaay nit doole tëj ko kaso nit a ngi jaay nit doole nangu suufam nit a ngi jaay nit doole nangu alala ma taxaw tuuti ci xëccoo suuf bi léegi xëccoo suuf saa ngi mel ni tulle maan te ku ci nekk boo ko jëlalee nit boo ko jëlalee lu toll ni suuf ëllëg yow ba xiyaam dinañ ko mètre yi coqati ko ba ci suufu juróom-ñaar soppi ko tax bu tàng jër kaala la ko ci sa bopp allahu akbar yéen sama mbokk lii lu ko jag ci at bettax bu ñu romb bu ñu ruuyee bettax moo ko gën a tàng fuuf dama xam ne rek buñ la toqaloon sonnel rek ngeen ko fay sa waxatu ak bettax yéen sama mbokk yi dañ leen di ñaan foofu dama leen di wax alal mu àdduna fii rek la yem demul fépp delloo si leen seen xel ku lay jaay madeel xaar ko ci maam àdduna moom ak ñëpp ku lay jaay maa ngi xaar ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp ku lay jaay xam-xam jaay ko doylu ku lay jaay xam-xam jaay ko ragal yàlla fukki ndénkaan yooyu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon xeet ci baax ci yàlla suñu borom lu ci dëng ci man ñun assalaamu aleykum wa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 julliti yàlla yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu incha damay waxtaan ci thème am solo buy wax ci bismillahi rahmani rahim yaa ayyuha allazina amanu wala taqrabu maala al yatimi illaa billati hiya ahsanu hatta yabluha ashdahu wa awfu bil ahdi inna ahda kaana mas'uulan sadaqallahul aziim aaya bi mi ngi ci sóoratul Israa ci fanweeri aaya yi ak ñeent mooy saaru riñaan bi fii sunu borom mi ngi ñu fii wax ñu sàmm kóllëre ndax ëllëg yow man xiyaam dinañu laaj ndax mote la woon nañu ma indi leen ci ay fisa géej dafa fassante woon kóllëre ak jën géej ni jën feet yaa ngi ci sama biir doo dee jën ne ko kon saa yu ma génnee ci sa biir dee géej na ko ba tey dinañ tase ji te cër la sunu sang bi alayhi salaatu wasalaam bés dafa jàpp yoon ànd ak yi ñuy dox mu dégg ku koy woo mu geesu mu yem ci benn kéwél mu ne ko ndax yaa may mu ne ko waaw dama bëggoon nga tekki ma sang bi ne ko ah damay bañ nga war ma mu ne ko duma la mos sang bi ne ko waa yow sax ana lan moo la indi fii mu ne ko rëbb balee tëdd ci suufu garab gi di nelaw moo ma fekk ci sama biiru njaboot moo ma jàpp moo ma indi takk ma fii te dama bàyyi ay seet yuy noonu mu bëggoon rek nga tekki ma ma dem nàmpal leen ñëwaat sang bi ne ko maa ngi lay tekki xaar la fii ah bi dellu na ci njabootam ba séex yi tàmbalee nàmp ci kàttanal borom bi ak kéemtaanam benn seex bi sigi jàkkaarloog sang bi mu ne ko yaay ñu dee ak xiif moo ñu gënal góor bu mag bu baax gee nga tayle ci naaj bi dellul ndax mu mën yeeweeku ci la kéwél bi delsee sang bi sëggaat takk ko bay sigi tase rëm bi yeewu na ba yegsi ci ñoom di leen laaj ana moo xew fii sang bi ne ko damaa bëggoon nga baal kii mu ne baal naa ko kéwél bi ñaan teg tànku ndeyjoor ne ashhadu an laa ilaaha illallah ñaajaat teg tànku càmmoñ ne wa ashhadu anna muhammadu gëm naa ni yàlla kenn la te gëm naa ni muhammad yàlla ko yónni te mooy gën mi def allahu akbar nañu leen di sàmm kóllëre ngir dénkaane borom bi la ولا تقربوا مال اليتيم yàlla ne bu leen laal bu leen jege alalu jirim ndax tolluwaayu jamono ji dangay am sa nit ànd ak moom ay at yu baree baree bari ba ñu foog ne dangay na bokk sax deret ndax yàgg nga jël sa xol ak say xalaat yépp jox ko ndax danga def ni sa bopp nga ne ko dénk naa la sama njaboot suñu borom dogal nga jiitu nit kooku nga dénkoon de mooy ëlbatiku ñëw takk soxna si fi bàyyi fas yéenee toog frenkulaayi ci njaboot bi ci alal bi fi bàyyi ba tumuraanke nga si sa njaboot bañu tasaaroo ana kóllëre kii sàmmul kóllëre ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu musal ci mbokk ak dëkkandoo xarit yuy fecc kóllëre lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam la may sant suñu ustaas Mohamed di ko ñaanal di ko ñaanal tawféex gudd fan wér-gu-yaram yàlla yokk barke barke njabootam boolekaat jullit yàlla yépp di sant sama borom kër bu baax ak sama njaboot yi ma jàppale ci njàng mi di sant mbooloo mi nga xam ne at bu jot ñu wuy si ñu na ngeen ko yàgg a teewe ci barke weeru naaj bi barke alquran al karim asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu takbir takbir masha allah takbir kon ñu ngi xamal ne waa TFM ñu ngi fi ak waa RFM ñoo ngi ñëw nañ ci bés bi ak waa Salam Vision ñooñu ñu ngi fi wax nañu ne waa daal Alexandre si Tefadia ñu ngi fi ak seen papa daara papa Sarr ak yaayu daara yaa Seda Sali kon bu defee rek comme waxtu julli jot na ñu dem julli ñëwaat continuer jotaay bi macha allah jigéen ñi bu ngeen dugg ci biir kër yi. yi bismillah تدعو الأولى بذات التاشر من تزال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk jullit yi gannaaw li ma santee yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu nuyu lislaam bi subhanahu wa taala xool assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuh tey jii nag dama leen ci indil benn année bu solo surtout ak aya 14 alhamdulillah وسن الإنسان بوالديه حسنا قولته أمه كفرا ودمه خفا وخمره وفصاله ثلاثون شرا حتى إذا بلغ أسده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أصغر نعمتك التي أنا أمسى على يا وعلى والداي أنت ولا صالحا ترجو وأصلح لي في جوريتي إني تبت إليك إني من المسلمين صدقة وأزل أي منك من وقت ورث waajur ak ay doomam ah kenn umpalewul ko bàyyi moo waddal mooy dundal te nekk mooy ëmb juróom-ñeenti weer buñ ko taqalee mu deret ba mu doon ci lañ koy commencé wax jigéen wërul te muy dëgg dëgg jigéen bu ci jaar xam na ko ah yàlla dem ñu nag ci ci ci temps saxaaba yi am na benn waaye yàlla bi nga xam ne macha allah macha allah dafa gëm yàlla bëgg waajur yàlla dem ko ba mu am ñaari paas màkka mu dem ànd ak yaay ji màkka bi ñu demee nag ba ca Kaaba ba war a tawaaf mu yërëm ndey ji ak bëgg bëgg ndey ak waa bëgg ay waajuram mu mu mu mu mu mu boot ndey ji bi mu bootee ndey ji tawaaf ak moom ba tawaaf bi jeex mu dem encore ci Safa ak Marwa mu daw mu ànd ak moom ba Safa ak Marwa bi jeex. ya mu daw ak kontaanam ndax li mu def de mu ngi topp mu ngi wax ak li yàlla di lépp waroon ci moom def na ko bëgg ay waajuram lu ne leen di defal bu doon ci temps ci temps bi mu naan def na lépp ndaxte wa utal na leen kër bu baax utal leen oto bu baax utal leen di leen dundal dundal bu baax dund nga xam ne am amul ak te lépp lu ñu te yàlla ànd ci ñu koy def mu dem nag bi mu tawaafee mu ne ko sama waay ah tey kontaan naa ñu ne ko ndax mu ne war naa sama waaju tawaaf mu nettali ko nu mu def yépp ba mu pare léegi nag kooku ne ko ñaata at la la boot ak ñaata weer la la la la nampal ak ñaata weer la la ëmb mu ne mu ko léegi lépp li nga defoon na nga dolli lépp li nga defoon na nga dolli ndaxte waaye du kenn mënu koo fay diggante boot ak ak mucc kenn mënu koo fay léegi nag na nga na nga na na nga defoon continuer bu ko bu ko bu ko bàyyi kenn waajur nag dëgg ci ko kenn mënu koo fay maa ngi xamal ne mbokk yi nit ñu mënul fay waajuram ndaxte waajur dénkaane doom doom dénkaane waajur la léegi nag nañ ko nañ jëggante ci loolu ci xam ne yàlla yàlla te lu mu wax ci ne diggante doom ak waajur kenn mënu koo fay nañu dimbalante te topp li yàlla wax ndaxte anañu dellu encore ci benn aaya bi dina benn xadis bi nga xam ne te mu wax aljannatu tahta aqdamil ummahati loolu mooy lan que seen aljanna ñu ngi ci seen tuuti tànk yaay la yàlla na yàlla may ñu ko jëlee ñu moytu wala taxul la ko ëmb fan loolu mooy lan ngay wax ak ay say waajur di sànni loxo naa yow sonal nga ma yow doo doo nga dangaa naqari dara te mënul dekkal yow loolu yàlla nañ ci yàlla musal maa ngi ñaax sama bopp nag di ñaax mbokk yi nañu dimbalante te topp xale yi wutal leen ay àndandoo lu baax ba àndandoo bu bon toujours day yàq ndaxte dangay jur sa doom fi ko war a jure yàq ko fu koy war a yare benn saay-saay jóge fa ñëw def détourné ko ndax lan ndax mu góor mu góor diine bi te dina yàlla bi képp ku ko bëgg yàq yàqule ndaxte yàlla moo jàppal boppam diinam yal nañu yàlla may ñu topp ci lu lu sunu Muhammad ak alxuraan alxuraan yi nga xam ne waxu yàlla la mbokk jullit yi àndandoo yu bon yi mooy yàq xale yi te nañu dë dimbalante ñu jàpp ci bu baax di ñaax suñu doom di yéen yàq ci lislaam yoonu yoonu lislaam loolu suñu Muhammad ak ak ngëneel ci suñu borom subhanahu wa taala ndaxte hadis lu mu wax loolu la ak ndey kenn mënu kenn mënu leen tegtal te do ndey mënu mënu doom mënu fay yaayam dañu dimbalante ci loolu maa ngi di ñaax di ñaax di xam ne di leen xamal ne que lii lan yàlla digal nañu topp waajur yi ñu jox leen seen gëdd ndaxte waaye ba kenn mënu koo fay kenn mënu koo fay loolu la souvent subhanahu wa taala wax diggante doom ak waa ji bu ñu nekkee fii ba suba di ko wax ñu ko jeexal na doon noonu nag lii laa leen indiloon bu baaxee te suñu doom subhanahu wa taala ñu déggee ci sama sama ñàkk xam-xam la maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant. di wax lépp luñ fi jaar jaamu mu tuuti ak mu bari yal nañ ko yàlla defal defal mbooleem jullit di di sant nag sama ustaas di ko wax ndaxte di ku la jàngal alif laam miim mënoo koo fay wax ma nag lu muy dugal ci suñu bopp yi ñoom sax bu hadis yi te topp alxuraan alxuraan yàlla bi wax alxuraan yàlla wax yàlla waxu suñu borom subhaanahu wa taala la ma maa ngi leen di ñaanal lépp ñu fi jaamu mu bare ak mu tuuti yal nañ ko yàlla nangu ci daraja Muhammad ya Rasulullah di ñaanal sama ustaas na bu baax a baax di ñaanal waa daara bi di jiital ndey maama Kamara mi nga xam ne moo ñu indil ustaas nga xam ne iñaanu soxlul te xam-xamam mu yore daf ñu ko bëgg jox ñun waaw li mu ci bëgg nag yàlla ko yàlla defal te yàlla may ko gudd ak wér gu yaram ak bu rafet maa ngi ñaanal waa daara bi di ñaanal waa bâche bi yëpp fekkee nañu ren yàlla nañu fekkee déwén ci daje Muhammad yaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def te ko lépp luñ ci jaamu yàlla na ko yàlla nangul yàlla ñu may ñu gudd gudd ci diine te dee ci lislaam yàlla am na mën na ko asalaamaaleykum wa wa barakaatu. takbir macha allah macha allah kon li ñu ko waxee yaay kenn amul sayam ndax yaay moo ëmb mooy wasin yaay mooy boot kon yal nañu yàlla fayal suñu yaay yi kon yaa Seyda bu mag bi yegsi na bu defee rek ñu dalal ko mu continuer liggéey bi yaa Seyda dafa dalee mashkuur yi di بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات sama mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci nuyoo boo xam ne suñu borom subhanahu taala moo ñu ko boole muy wa rahmatullah loolu di indi thème julli asalaatu imaadu diin asalaatu mifta bu kullu xayri yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ne julli mooy ponk diine julli mooy ponk diine julli mooy caabi bépp yiw mbooloom xeetu jaamu yàlla yëpp sunu borom ñu ko jox Seydina Muhammad ci suuf mais bi julli ñëwee dafa nekk da yëg ci kaw ndax waa suuf dañ laa ma tatagal la màggal la jox la julli ko yóbbu jox sa xeet yi kon sunu borom mi ngi wax ne képp ku faat julli rek mbugal ñeel na la faat julli mooy julli jot nga nekk sa yitte nekk sa yitte ba waxtu yu paase nga boole julli yi jox ko sunu borom sunu mu ne mbugal ñeel na la te keroog ñu mën ko yaam sunu borom julli lay jëkk seet bu julli baaxee rek lépp baax su julli amee problème rek le problème taxaw. kon sama mbokk jigéen ñi ak man ak yéen maa ngi leen di ñaax ñu taxawal julli ca waxtu wa maa ngi leen di indi fii benn gis la ñu Seydina Muhammad ak xaritam ba Ababacar Ababacar sàmm yi dañ sàmm yi woon ne gëleerul sàcc sàcc yi nakar ga sàcc ga Ababacar ñëw ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow ki yàlla yónni sama gëleer bi sàcc yi nakar nañ ko sàcc la te Seydina Muhammad nekk la ilaha illallah nga Babacar Babacar man defoon naa sax nekk nga may wax man damay foog da may wax ne benn benn julli moo la raw ca mbooloo ma nga ñëw di ma wax ne yow ay gëléem ah Babacar nekk sama gëléem yi yàlla yor bi mu ne àddina ak li ci biiram boo ko amoon yow nga xëy suba ñàkk ka benn ràkk julli bu la raw ca mbooloo ma moo ëpp doole allahu akbar mbooloo ma na fonk na fonk julli ca waxtu wa kenn waxul ngeen nekk seen yitte nekk ci yitte ba mu passé nga boole ñaari julli jël nga war nga jox ko jox ko sa tur mu borom kon nag maa yem fii di leen ba beneen yoon di gërëm sama oustaz ñu ak jabaram rek di wax mbooloo kabir laa yoo yaa sayda mère Diané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 mbokk yi dama ñëw ba pare atum ren bii ma indil leen thème bu am solo mooy jàng te suñu ne jàng xel yi xalaat yi yëpp a ngi dem borom kër yi góor ñi mais sa su nekkul ñëpp waaye am na ñoo xam ne dañuy jëndaa jëndaa jëndaa ba dox nii la ñuy dox. boo yëngu leen suñu solee mbax na ci biir kër gi mbax na bi dafay dugg waaye suñu pare mbax bi day génn ngir dañ ko man ma loolu lan moo ko fi jar yow yaa takk sa ñaari yaa takki kii indi ko takkiwaat kii indi ko kon doo tey ku si jënd rek dangaa fàtte li sa borom wax que neen su fekkee danga nar a jënd na nga yem ci benn jàpp bul takk ñaar bul takk ñett na nga yem parce que kooku bëgg laa jëndee mbugal parce que soo jëndee ah am lu lay xaar dañ fi des suñ yeggee ci bés dañu la sa appareil plat bi nga jaakaar moom moom. image yi di wadd par benn benn ci heure ba ci bés ba foofu mën na wax ne xaaral ma dellu sama gannaaw déedéet réccu rek a fay am te moo koy góor ñi bàyyi seen xel bu baax bu leen topp seen bakkan bii noflaay bakkan bii bu leen ko topp ci àdduna ji dañuy dellu ci suñu borom te soo delloo ci sa borom na nga am li nga yóbbu bi nga ne yow foofa demee suñ lay àtte mu neex yow ah ma indi benn kiste bu am solo góor ñu déglu leen ma de kii benn borom kër mu am aawoon nekk moom amaat ñaareel nekk ak moom waaye boobu dara doonul dara mook aawo bi la suba ngoon léeg yi dërër yëf yi dëgër ba mu tàkk ah awa bi lu mu koy wax mu ne ko mais ah yow ah, dem lijjanti tamit mu di daal daal di ñëw su ñëwee mu ne ko ah ah aja ah, lii de moo fi nekk mu ne ay ah, waaye ni indi rek loolu maa teel ma toppoo ko yàlla baax na bésam ngay ñëw ci bés dina baax kon loolu ku dee fàttali ne bés dina baax yàlla dina ko baaxal bés bu mu baaxee naa ko fàttali waaye bés bu mu baatee yow nga ne naa dem tëdd ci ñaare faate kii ak i doomam loolu jekkul rafetul ak ah, sa su la dalee rek waxuma la fale sax bi ñuy xaar waaye fii adduna ji sa dara du jàpp waaw léegi nag mu ñu nekk si nekk si ah yàlla muy soppi yàlla soppi jamono yëf yi dal di baax mu jékki-jékki rek daf ña aaw mun si ba xamatul kër buntu aaw bi fu mu féete xamatul doom yi fu ñu féete xamatul sax kenn moom mun ci ñaareel ba mu nekk si nekk si nekk si ba ay at yàlla indi feebar feebari tension mu nekkati feebar bi aaw bi xamal ne feebar la muy ci ñaareel bi rek ah bi yàlla indi bés ah xelam yee da ko mu man mii dama war a dellu ci sama kër gu mag ci sama aawa ma dem tuubale ko mu daal wax eh, ñaareel bi dimbalee leen ma fii Samba Ndiaye ñu dem ooyi Samba Ndiaye muy xarit bi mu daal di ñëw au ñu wax ci ko xam nga lu ma bëgg ah mu ne ko waa du benn problème kooku jàppale ko mu daal di solu ni muy génn mu tase ñaareel ba mu daal di ko nii waa ni jaay foo leen jëm mu ko dama koy yóbbu ci docteur ga tee nga ko ne maa ngi koy ko naa maa yóbbu ci docteur bi dafa am rendez-vous te kër bu mag bi lañ doon dem de pour jéggal yàlla dem ñu dugg ci oto ba ñu dem ba sa buntu kër aaw ba moo tax yàlla kenn mënu koo nax yàlla moo ñuy nax ñun waaye ñun ñun ñun nii ñun mbindeef yi déedéet mu daal dem ba sa buntu kër ga su mu taxawee xale bi daal di daw di ubbi buntu oto ba rek yàlla jël ko fa la dogee coow bi nag ne pour ñii ne na dellu ci ñaareel bi ñu dajee ko fa ñii ne déedéet nañ ko dajee kër aaw yéen waa baas bi yéen laay laaj suñu fi yàlla bàyyi fii ba déwén ngeen tontu ma aaw lañ koy daje wala si ñaareel léegi maa ngi dellu bi lay sama ustaas ustaas aaw teñe wala du ko teñe man la koy laaj di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baal àq ñëpp na ma ñëpp baal àq di leen ñaanal yal nañ ko fekkee at yu bari bari bari bari rafetal fekkee yàlla mel ñu wér ak wér wér di nuyu waa saa cité Nations Unies muy paañe nga di imam daaj ak ñëpp nekk ci jàkk bi di leen ñaanal

yéen a ngi koy seetaan en direct ku ci am moo xam ne ñëwul it mën nga ko jox lien bi rek mu toppee ko incha allah allah rabbi Salam Vision su ngeen ko defee rek di ngeen ko seetaan jamono ji mu ngi daw en direct ci YouTube. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. wa barakaatu. laaj bi ba laaj bi dañ la war a laaj muy laaj solo comme maire jaane na fi dégg nañ li mu wax ci li nga xamante ne ah yow ñu la ndax moom ñu wax suñu contrat ak takk suuf dagan na wala daganul nga leeralal ñu ko. suñu ndax saaba yi buñ masaa dem takk ay soxna boo xare ba jeexee ñu ko solee sallallahu alayhi wa sallam nag suñu yonente bi xarab Xaybar araamale woon moo takk suuf ñooyam takk na nga war a wax te kaw ñëpp ñu ko dégg waaye boo ko waxee ci suuf kenn du ko dégg bañ a ëllëg ay borom kër ga fa ñu nga ko am fa ay doom nu naa doom yi kan moo leen dul takk suuf moo ko waral takk suuf daganul dafa araam kon macha allah takku suuf si dana mën dafa xaram. beneen laaj bi kii nee na day laaj. bëggoon na xam asamaan ak suuf ci ñaata fan la ko yàlla bind. diggante asamaan ak suuf mu ko bind ci juróom-benn fan. asamaan la njëkk a defar loolu la defar suuf ndax ko defee suuf la defar asamaan nu suuf la tax a defar asamaan moo tax asamaan la njëkk a defar loolu la defar suuf. kon macha allah loolu leer na xalaqa samaawaati wal ard fi sittati ayaamin kon yàlla asamaan na nga sàkk soo ko sàkk suuf loolu yàlla rek ko mën di tabax njëkk a defar dal kooku yàlla rek ko mën beneen laaj bi loolu ñuy wax bismillahi rahmaani rahim bëggoon nañ xam ban yonent yàlla moo ko njëkk a wax. kooku mooy yonent yàlla dañ xañ fu ma jëmoon ngelaw li moo ko fi yóbbu kooku mooy yonent yàlla dañ xañ moo daan wax ak korotoo bi kooku mooy yonent yàlla Suleymaan. takbiir macha allah. kon kooku moom njëkk a leen avion lañ mën a wax naaw ci jaww ji ñu dem allah jërëjëf Touba yal na yàlla guddal fan yi. banaan naa ne baal àq waa baax bu ñëpp di baal àq sama dëkkandoo yi. te nu ko yëpp nañu ko yàlla nangu. di gërëm nag ndey daara ji. mooy man maam Mamadou Mbaye. di gërëm ndey daara ji mooy. sa bintu. di la gërëm nag yow

ñu ngi koy seetaan nii macha allah en direct ci YouTube bi nit ñu bëri ñu ngi koy seetaan fi mu ne nii ci jamono ji ñu toll nii macha allah mu doon loo xam ne lu am solo la kon bu defee rek yaa Seyda ku ñu dalal. ñu dalal yaa Seyda maam Sey Jaxate kon bu defee rek ñu fàttali leen su ngeen defee Salam Vision Salam Vision ñu ngi koy am en direct ci YouTube bi. te a mu doon ak seen sant di leen boole nuyoo lislaam bi ñu yàlla boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi ñëw ak yéen ci faratay julli faratay julli fukk la ak juróom-benn yéene kàbbaru arme ak taxawaayam faatiha ak taxawaayam rukkoo dal yéemu sëlmal ak toogaayam toftalante farata yi maamu ni toppandoo bi toppandoo imaam ci kàbbaru armal sëlmal bi maamu ni roy bi ñuy roy imaam ci julli gi yëpp. takbiir yaa seeda macha allah. kon farata julli yàggoo muy fukki farata ak juróom-benn te képp kuy jullit farata la ci yow pour nga xam ndax boo xàmmeewul farata ak sunna soo julli fàtte farata nan ngay def sëlmal recommencé waat te bu boobaa julli bi daf la ne dayaatallaahu kama dayaata nii ni ma toroxalee yàlla na ko yow a toroxal bu neex ci yàlla musal kon yaa see julli boobu la ñuy desal bëggoon nañ xam yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi nga xam ne yàlla mu ci moom julli boobu yonent bi ñaata at la am ci nubuwa gi maanaam ci mission bi ko yàlla jox. alhamdulilahi rabbil alamin yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko suñu borom di jox nubuwa gi maanaam mooy mission bi booba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi am ñeent fukki at ci ati bopp ci la ko yónni jox ko jox ko juróomi ponk lislaam yi maanaam mooy kenn di téye lislaam wax ko naka la ñuy duggee ci lislaam maanaam mooy seede bi ne ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci mission bi ba am ci mission bi fukki at mu tombee nag ak juróom fukki atam ci ati boppam. allah macha allah kon loolu leer na kon yàlla yónni mu yonent bi rek ko julli kon doxal islam di ko doxal ba mu am fukki at julli di soog a ñëw waaye ku wax julli wax zakat muy azaka ku wax julli wax koor ñu la doon laaj. yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi yàlla di wàccee ci moom azaka ak koor boobu yonent bi ñaata at la am ci nubuwa gi maanaam mission bi ko yàlla jox. alhamdulilah rabbil alamin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko suñu borom joxee julli maanaam ci nubuwa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ca Makkatal Mukarrama lii ma wax léegi ca Makka la xew yonent bi defee mission bi ñetti lépp ci Makka la ci la ndigalu gàddaay bi jóg yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaaye Makkatal Mukarrama jëm Madinatul Munawwara ànd ak Abu Bakrin Sadiq nga xam te gàddaay yëpp yàlla dogal yonent bi egg Medinatul Munawwara ak xaritam ba Abou Bakr si dal ba ñu def fa ñaari at mbooloom ki la ko suñu wa taala jox zakat jox ko koor bi ko borom bi defee zakat ak koor booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am fukki at juróom ci nguur gi maanaam mooy am juróom fukki at ak juróom ci ay at macha allah wa sayda kon loolu leer na yàlla suñu borom laata muy jox yonent bi koor boobu yonent bi gàddaayee na Màkka dem Medine ba def fa ñaari at tolloo fukki at ak juróom ci mission bi ko yàlla jox waaye tolloo juróom fukki at ak juróom ci ay atam gis nga yàlla fu dafa def li ñuy wax atadrij maanaam ndànk-ndànk ndax bu yàlla tegoon wàccee koor wàccee yooyu yëpp ak jullit yooyu su ñu leen ko yàlla jëlee sa diine ji ñu gëmuñu ko ndax koor daa waaye nag ku wax koor wax zakat wax al hajj muy ak màgg bu ko am alayhi salaatu wa bi yàlla di wàccee ci moom aj màkka maanaam bi yàlla di farataal ci moom aj boobu yonent ñaata at la am ci mission bi ko yàlla jox. boobu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am ñaar fukki at ak benn ci mission bi mooy nubóo bi bu yàlla dogalee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di eggal mission bi ba tey ak moom suñu borom dogalul ñu am ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yabal Abu Bakr Siddiq mu jiite mbooloo ma ñu jóge Medina booba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi am juróom benn fukki at ak benn yàlla dogalee ñaareel ñaar fukkeelu at ba ak ñaar Abu Bakr ba tey moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox mu àndaat ak mbooloo ñu yàlla dogalee ñu aji Makka ba dellusiwaat at ma ca topp ñaar fukkeelu at ak ñett ci mission bi. le Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aj Màkka ànd ak mbooloo ma yooyu yëpp yàlla dogalee ñu aj Màkka ba tël si Medine buñ ci toogee ñetti weer ci la yàlla wàcce dogal bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu daal di wàcc liggéey daal di génn àdduna loolu lépp ci Medine ba li yàlla dogalee tamit Seydina Muhammad génn àdduna Abubakar Sadiq moo toog ci xilaafa bi toog ci ñaari at yàlla dogalee moom it mu wàcc ci liggéey Omar jël xalifa bi toog ci fukki at bi yàlla dogalee bi Omar wàcc ci la Aliyu Abi Taalib jël xilaafa bi mooy juróomeelu saaba ñeenteelu saaba Rasuul bi daal di toog juróomi at Ousmane moo jiitu moo toog fukki at ak Omar Aliyu léegi nag ñoom seen xalaat la ñoom maanaam seen mission ñu ngi toll ci fanweeri at la leen suñu borom jox mission ñu santaat yàlla ñu ci yonent bi mu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu oustaz sant suñu borom bu tey yëpp nga ñaanal oustaz yal na ko sama borom barkeel ñaan képp ku fi teew yal na yàlla faj sa aadama ñaanal suñu wér bi nga xam ne ñu daal jéggal seen i bakkaar ak tamit ñun ñëpp ci mën yàlla tàbbal leen ak saa yi ñun ñëpp ci wàllu séddalaat bi yaa Seyda moom say jaxate yàlla yàlla yàlla waaye ñu woo yaa Seyda jëmbuloo auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokku jullit yi kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci nuyoo bu ñu buur yàlla boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey nag dama fi ñëwoon waxtaane ci affaire julli ndax kenn ku ne xam ne julli dafa bari ay sew sew yu nekk ci biir. macha allah ndaxte sama compagne gi bari nañu julli julli ga yàqu te duñ xam nuñ koy réparé ci biir julli bu ko defee nag. macha allah kon bu ko defee ñu dugg ci laaj yi. yaa seega laaj bi fi mu di kii Jóob ba la tudd nee na da doon julli si timis si jàkka ji mu ñëwee fekk imaam raw ko lan la ko imaam rawee ñaari rakkaa yu njëkk yi bi imaam taxawalee ñetteelu rakkaa moom ci la yegsi muy laaj léegi moom lu muy def léegi imaam moom day ànd ak moom ci ñetteelu rakkaa boobu moom mu toog mais du taa du taaya mu jug indaale ba imaam sëlmalee mu indi ñaareelu rakkaam tari ci Fatiha ak saar toog taaya mu indiwaat ñetteelu rakkaam tari ci Fatiha ak saar toog taaya sëlmal mu ñetti toogaay yi waaye du ci sujjóot dara ndax jot. macha allah kon loolu leer na kon képp kuy julli timis imaam rawale ñaari rakkaam nga ñëw fekkee ñetteelu rakkaam bi loolu nag moo gën a jafe ndax timis dafa toll. kon bu boobaa troisième rakan bi nga fekkee yow mooy sa premier rakan fatiha kese nga ciy tari su imaam toogee di taaya pour sëlmal yow da ngay toog waaye doo taaya nga jóg indi sa deuxième rakan tari ci fatiha saar comme ni ko waxee foofu ngay toogee taaya soo jógee indi sa troisième rakan tari ci fatiha ak saar taaya sëlmal doo sujjóot doo def dara donte toog nga ñetti toog mais imam moo lay yóbbaale ci toog bu njëkk ba nga toog te fa waroo woon toog foofu kon beneen laaj bi yaa seedaa kii Lamine Fane la tudd nee na da doon tu liggéey bi mu defee ñaari raakaa mu war a toog taaya mu fàtte ko jóg bi mu jógee xelam daju ko mu continuer ba rukkoon ci troisième raakaa bi kon troisième raakaa bi fasul léegi muy laaj muy def maanaam foofu mën na continuer indi troisième rakkaam tari ci fatiha indi ñeenteelu rakkaam tari ci fatiha toog taaya sujjoot xabla salaam parce que mu sujjoot salaam mooy ñaari sujjoot lay sujjoot parce dafa dafa euh, dafa fàtt dafa euh, dafa toog fàtte toog taaya ak toogaay. macha allah. kon day sujjul xabla ndax dama fàtte taaya ak toogaaya beneen laaj bi kii Abdoulahi Ñing la tudd nee na doon julli tàkkusaan def ñaari raakaam mu war a toog taaya mu fàtte ko bi jógee ba taxaw xelam dañ ne moom taayawul muy laaj nu muy def moom taayawul nu muy nu muy def mën na del si waat toog taaya bu bu toogee taaya indi waa troisième raaka xaritu fatiha indi ñeenteelu raakaam xaritu fatiha toog taaya sëlmal toog taaya sëlmal sujjóot ñaari raakaam ndax daf mu loolu mooy baata salaam taaya waat sëlmal ndax dafa yokk aller retour kon loolu leer na képp kuy julli def ñaari raakaam war a taaya mun na dal ku ne nga fàtte jóg taxaw sa xel daj ko ba nga dellu si waat xam nga temps bi la rëccoon léegi fay nga ko boobaa da continuer julli bi indi sa troisième raka tari fatiha indi quatrième raka tari fatiha taayee sëlmal surtout baax na salaam lan mooy baax na salaam mooy fi nga toog da ngay doo jóg su ñaari yoon taayee waat sëlmal li nga xam ne su jur baax mooy aller-retour bi nga def baalante boobu bu mujj bi bii moom ñëpp laa koy laajal kii yaaya ngera la tudd nee na da doon julli li xam ne moom mooy tàkkusaan mu dem ba ci biir julli bi xamatul ñaata rakkaa la jaxasoo na xam naa am na ci lu mu nekkoon xelam mi jaxasoo xamatul ñaata rakkaa la léegi nag fi taxaw mu ngi sikki sàkk ne waaw bii mooy sama troisième rakkaa wala bii ma taxaw mooy sama quatrième rakkaa ku ku ne lay dal bu boobaa nu muy def imaam bu boobaa day jàpp ne boobu mooy ñetteelu rakkaam day xool bi nga xam ne moo gën a ndaw muy ñetteelu rakkaam moom lay moom lay taxawal tari ci faatiha indiwaat ñeenteelu rakkaam tari ci toog taaya sëlmal def baal salaam ndax mi ngi xalaat ndax yokk na wala yokk mën naa am dafa yokk ci junne macha allah takbir bii yaa Seyda Demba Lo ñu ngi lay ñaanal yàlla may mbokk may ñaan sama mbokk yu jigéen yépp nag képp koo nga xamante ne yaa ngi julli na nga na sol jot di sol loo xamante ne dina egg ba ci tëkk jarab yi ndaxte ne nii lu yéwee loo xamante ne la jigéen ñi si ñenn ñi nga xamante ne dañuy julli jël koor bu yaraax a yaraax ko jullee tamit loolu dafa julli képp ku dem bay jàkkaaroo suñu borom bi daal mën ngaa mën nga def noo xamante ba jeex ñaan moom la nekk maa ngi lay a góorgóorlu di ñaanal ak soxnaa ñaanal waa daara ji yëpp maa ngi leen di ñaanal ñaanal suñu président ñaanal am nañu li nga xamante ne moo xam moo tax ma xam daara ji di ñaanal waa daara ji yëpp bàyyi ma kenn yëpp fu teew rek maa ngi lay maa ngi lay ñaanal yàlla nañu ko yàgg fekk te yàgg ko teew di ñaanal góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal tamit suñu imaam bi nga xamante ne moo ñu yàggal ci daara ja bañ mën fay jàng maa ngi ñaanal ñëpp. sa biir yaa Seyda jërëjëf ñu woo yaa Seyda Binta Diagne. kon ñu leen di sottal rek ne. conférence bi yéen a koy am ni en direct ci Salam Vision ku ko tapé rek incha allah di ko am ci YouTube bi bisimilah yaa seyda. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gannaaw ma sante yàlla jonte mu tëdd Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñu ngi islam boole ci asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatu te bi ma leen indil nag mooy taxawal jigéen ci islam parce que daanaka li ko wax le rôle de la femme dans l'islam nga xam na ne jigéen moo dëkk ci islam di kan wax nga ak jaam doo xam doo jàpp Mouhamed mu duggee ci diine bi lépp lu mu jàpp dafa nekk ci pas-pasam ci alalam waaye jigéen moo njëkk a génn àddina ci lislaam maanaam jigéen moo njëkk a nekk martyr de lislaam muy kan Soumayata kan mooy Soumayata Soumayata mooy jigéen ji nga xam ne borom bañ koy góob saa mbaa booy ñu ngi naan ko ceeb ak ak yéen ak ak loolu rek tax a jóg islam waaye waroo ko def ñoo tànku tànku takk bu mu dëgër yow ci gëléem yow tànku ngay joor takk bu mu dëgër yow ci gëléem ndax naan dëgg akam rek waaye xam ngeen suñu borom bu ko demal kenn mu fay ma tuuti rek yàlla suñu borom yónnee waxul rek boo ko sumale te day ma fonk bu baax waaye kii bi yëpp ngir yas ba ba ngay amal xiyaam àjjana waxoon seen kër ngir naan bu taxawal jigéen ci biir lislaam waaye nag dem bu taxawal jigéen ci lislaam dañoo ci boole raabiya yéen sama mbokk yi ana kan mooy raabiya raabiya àll yi mooy jigéen di nga xam ne moom mooy góor daan na naat bés bu yàlla sàkk téeméeri rakk du premier janvier au 31 décembre ko toog dañu doxal bi suñu borom nga naan ko soo yaakaaree nga dala dee dem safara dala dee dem àjjana moo tax loolu daal def jaam kon loolu jaamu boobu gàtt na jëm fi ma jëm na yaay yàlla yaay axat yaay rabbi samaawaati wal ardi yaay ku fi yëkkoon yow rek yaa fi man daal def ma dina jaamu waaye faale ma àjjana faale ma safara ah yéen sama bopp jigéen ñi. may taxaw tuuti wax ak yéen lu commencé sama bopp man Binta Ndiaye da ngay dem xew mag yow daal mu sóoru nga bañ mu sóor di tas lu maquillage bi yàq islam bi daal nga toog takkusaan yàlla nga toog timis nga toog ba ngeen dugg sa kër patam patam ngay wut ah ah boobu taxawal la jigéen yéen sama bopp jigéen ñi da ngeen foog wax ci juróom damay dëgg ci ñu naan la femme c'est le berceau de l'humanité ah ah bu berceau grenier la jigéen mooy magasin bu yàlla ni nga ñëpp ñu nga ko dénk suñu borom ak fonk jigéen ñi ak mu naan sax nga toog si saabu mu jël benn sànjal bu jigéen ñi amaa na saabu góor ñi amul dem suñu déggee benn saabu góor waaye saabu jigéen ñi am na muy kan foofu misra yi ñu jàppale mu jigéen ñi suñu borom yemul foofu de ak fonk jigéen ñi yéen jigéen gëm leen seen bopp mu jël beneen saa tuddee ko kan suñu yaay Mariama di kan yaay moom ci yàlla instant kon ñun jigéen yi man ak ñoo ko demee wax dañ leen defaraat suñu toogaay ku ci rafet si yàlla nag ku ci saafara man mi la Binta Ndiaye ñaan yàlla ñaan suñu ustaas ak mu yàqu yàlla bu mu yàqu bi ak mu am jàmm yàlla ko yàlla jàmmal projet yi mu am bi yàlla ko yàlla may mu wax ko. ñaa ñeneen ñu nag nit bu fekkee yaayam a jàpp ci mag yi day maanaam dama ko jàpp suñu mag yi ndax moo di kër yëpp daal di ko di ko sant di sant yëpp bureau bi di ko Adja Yande Faye def ci kër secrétaire général bi Adja Faye Diagne trésor bi suñu kaa sëñ bi Adja Aliou maa ngi leen di baal ak te di leen baal ñaan yàlla koo gis ñoo fekk di leen yàlla ñu ci bàyyi li muy jëm gëlaan daaw laaj bi benn mooy gëlaan daaw mooy jéem a macha allah nuyu naa ñëpp yaa Seyda yaa Seyda Binta Diagne ñu ngi yaa Seyda kon macha allah yaa Seyda kon gis ngeen drone boobu ginnaaw waa TFM ñoo ko indi macha allah ndax nee nañ gis nañ jotaay bi solo bi mu euh, na ne wax dëgg yàlla dem nañ bu mel nii ñoom ñu koy solo moo tax ne nañ caméra bi ñu indi sax doyatu leen tax ñu indi drone bi noonu bi mooy tourné noonu di filmé di filmé base bi noonu yal na yàlla gën a dëgëral seen taxawaay bisimilah yéen si. bi daal di mën a seytaane rajim bisimilah rahmaani rahim mbokk yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndaw kon yaa sayda bu defee ñu ñëw ci laaj yi laaj bu njëkk bi kii ne na day laaj ndax jigéen dinañ ko fase ci ëmb wala déet oustaz jigéen dinañ ko fase ci ëmb demal jëli sa jabar balaa moo am doom soo xaaree ko mu am doom kat baara sa rek mu nga tax nga jëlaat ko te du doon baara yëgoo ñu déggee ci ne bay ba tas nga doog ko mën a jëlaat. allah kon jigéen boo ko xasee si ëmb nga sàggan jëliwoo ko ba am doom ah su amee doom nag sëy ba tas na baax day zaw ji rek moo fa mën a am waaye du nekk baara yëgoo Sénégal nag dañ ne bu amee doom bu dee jigéen la sëy ba tasul xanaa jigéen daa baaxul loolu nag aada Sénégal la waaye du diine yaa seyda beneen laaj bi. kii ne na dafa takk soxna bi mu takkee soxna si fukki fan ak juróom lañ am xelam ñaaw li xelam ñaawee nag mooy ndax soxna si takkuma ko ci ëmb ah yàlla dem mu yóbbu ko ci médecin yi ñu ko soxna si daal ëmb na boo mu ci ñetti te moom fukki fan ak juróom la amaguma moom muy laaj loolu lu ko ci dina wax. de buñ tasee sëy bi ba pare a su fekkee ne mosuñoo jotee su amee doom su a dese loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mu doon loo xam ne nag lu doy doy doy waar la yaa seeda beneen laaj bi kii ne na day laaj dafa am koo xam ne daal dafa amoon ñaari soxna muy aawo ak ñaareel mu jotee aawo bi. ci bés boo xam ne ñaareel bi mu aye woon mu dem sanaani ca ñaareel ba te jour boobu aaw bee aye muy laaj ndax loolu am na ci bàkkaar wala déet. waaw loolu sàcc ay ay la ñoom bokk ko ay la te xam ne ne baaxul nañu bàyyi xel nag. sunu aawo yi si biir kër gi macha allah. kon loolu leer na laaj bu mujj bi kii dafa amoon ñeenti soxna bi mu demee nag ba tawat dem ba amatul yaakaar ci jëmmam mu ne daal ñeenteel bi ak njabootam may na ko kër gi ñuy laaj loolu ci diina waaw may boobu wéru parce ko yemee àndul ak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 mbokk jullit di nuyee ñun ku ci nekk sa tur ak sa bi ñu subhaanahu wa wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi ma andiloon leen rek benn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man ta'allama qur'aana wa allamahu yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ki gën mooy ki jàng alxuraan karim ba mokkal jàngal ko te di ko jàngale yonent bi lan mbokku jullit yi lan lañ mën a dégg foofu ku jàngul alxuraan karim nan ngay mën a defee say farata nan nga a defee say sunna balaa ngaa mën a jaamu yàlla dangaa war a mën a jàng alxuraan karim ba xam ni yàlla wax ba xam ni yàlla tere mun ko teg yoonu siraatal mustaqiim kon mbokk yi nañ leen jàngi alxuraan karim bu ñu jàngee alxuraan karim ba pare luñ ci war a la nañ dem jàngale ji kon oustaz lay ñëw gàcce ngaalam ndax kat jëfe nga li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ndax ba nga jàngee alxuraan karim ba pare déjoo ko déjoo moom dangaa génn di ko di ñu baaxee baaxee ci sama genre nga xam ne tey ku ma newoon dinaa taxaw ne bismillaahi rahmaani rahiim bu yegg duma ko mën kon nag xam ne ni laa rabbil aalamiin jërëjëf oustaz ba ñu jox ngeen alxuraan karim ba di ko jàngal ba pare tamit léegi yàlla li ñu ci war a moytu tamit mooy boo mokkalee sa alxuraan karim nga di ci def li nga xam ne yàlla suñu borom santaane ko xam ne leneen la loo xam ne daf koy mën a jëriñ ci ñu jëriñ ko moytu mbokk yi lii laa def andi doon lu ci jóg yàlla suñu borom tabaaraka wa taala lu ci dëng ci man mu gàtt alwal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dina ñaanal yàlla suñu borom ñu fekkee sa taal déwén déwén yàlla na gën a nekk ren yàlla maa ngi leen di jégal di leen jégal di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu fekkee sa taal baal ñëpp am baal ñëpp am assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa Seyda Zeynab ñu ngi lay ñaan ñu woo yaa Seyda koor bu bari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 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر الرحمن بالخيب فباشروا بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي alhamdulilah macha allah takbir asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar waa Daara Al Haq di ziar Oustaz Mbaye sama doom di ziar mbooloo bi yëpp képp ku yal na yàlla faj sa aajo aajo buñ fi indi dana ko ci borom saafara ci kàttanu yàlla baaxam wasalaam takbir maa ngi leen macha allah tàccu na sama yaay bu baax kii mooy sama yaay mooy suñu xarit te suñu lépp yal na yàlla gën a waral baat bi wax dëgg yàlla yaasin nga daal yal nga yàlla yaasin. yaa Seyda Maodo Mbaye ñu ngi lay ñaanal yàlla yàgg sa taxawaay di woo yaa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 sinfaani li ummati isa salahu salahu naasu wa isa fasada fasada naasu al umaraahu wal fuqahaahu yonent bi nee na ñaara ngi nekk sama xeet bu ñu baaxee lépp baax wante bu ñu bonee lépp yàq ñu ko yaa rasulullah ñooñu ñaar mooy ñàkk ñu ko njiit bu déggee si njiit yi ñu ko ak kan ñu ko ak borom xam-xam ñoo jàng xam li nga xamante ne moom la yàlla suñu borom tey jii da ngay gis ni tey ñaata nit tey jii ñooy dundee diine te gis tey jii ñuy ŋàññi diine di yàq diine dañ ay doomu diine la gis tey suñu mbokk yi di fi jógee dem ba ay Arabie Saoudite di dañuy wut ci ay financement jàkka wala ay jumaa ñooñu bu ñu demee xaalis dañ leen fa jox bu ñu ñëwee dañ koy jël tabax ci ay kër jënd ci ay oto rafet ci takk ay soxna ñooñu dañuy dundee diine waaye dundoon ñu diine ak ñi nga xamante ni dañuy nekk si jumaa yi ak jàkka yi dañuy yalwaanal jàkka yi wala dañuy yalwaanal jumaa yi waaye boo leen joxee pièce ñu def ci biir mbuus boo leen joxee biir ñu def seen biir poos ñooñu dañuy dundee diine waaye dundoon ñu diine xanaa dañoo fàtte bis dina mën a mës a ñëw suñu borom dajale mbooleem doomu aadama yi di leen tey jii kan mooy buur ñëpp ni teg mun lillaahi waahidul ahad man yàlla man rek man maa kon mbokk yi ñun ñëpp war nañu bàyyi xel ci képp ku jiite rek war nga bàyyi xel ci wax ci wax yonent boobu tey ñu gën a gis ay nit tey ñu teg leen ci place ñu jiite fa ay nit xool ñu yàlla ci ñuy def jiitaluñu yàlla ci ñuy def parce que tey li ñu li ñu dal ñu tey yëpp ñàkk ragal yàlla ak ñàkk jiital yàlla ci ñuy def moom moo ñu ko moom moo ñu ko yóbbee bu fekkoon tey ni kenn ku ci nekk fan nga teg yaa ngi jiital yàlla ci ngay def di ragal yàlla ci ngay def kon def naa ni dinañ passé fii te ñun islam dañoo am chance boo xamante ni suñu borom wàcceel mi nga xamante ni mooy ngën gi mbindeef te suñu daan natt ñaari weer këram ci lu fa tàkk da daan ñëw ñëw ñu yaa Aïcha waa tey la fi am mun ko aatee ah, ko sang bi dara am na fi jël tàndarma seet jël loo xam naa daan génn dem tey ana tàggat ci tey suñu njiit tey jii këram mu xëy tey du joxe ndékki wala du joxe añ wala joxe reer amu ci lépp ci dootu askan askan kon nag sama mbokk yi maa ngi leen ñaax di ñaax sama mbokk kenn ku ci nekk fa nga nekk fa diine dara ak yàlla ci li ngay def jiital yàlla ci li ngay def lii nag laa def indi loolu lu ci dëng ci man la lu ci jub ci yàlla ci yàlla la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bii yaa Seyda Aminata Diop merci beaucoup. yaa Seyda Absa Rasoul أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر أواه ومن شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها المسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi tey jii nag maa leen fi teewal ngir andil leen tariixu yonent yàlla Isa Isa ibnu Mariama Mariama bintu Imran Imran boo ko toppee dina dem ba mbokkook yonent yàlla Daawuda mi nga xam ne bàyyi la woon ci Yawsa bokk la woon ci Yawsa mi nga xam ne Euh, mbokk yonent yàlla yusufa la woon ñoom ñooñu isaaka yankuba mooy seen baay yankuba isaaka mooy baayam isaaka abal anbiyaahu wa imaamal mursalina yonent yàlla ibrahima moo nekkoon seen baay kon mariama mi nga xam ne moo jur Isa nekkoon na ku baax jigéen ju jigéen ju sell jigéen ju taaru jigéen ju ragaloon yàlla te daan ko wéetal saa su ne kon Mariama xannatu moo nekkoon yaayam xannatu dafa sëy ak bu yàgg amuñu bant bés moom xannatu moomu donc ne dina ñaan yàlla subhanahu wa ngir mu may ko doom waaye ba muy ñaan yàlla ñaanul li ci xol bi waxul li ci xol bi moo tax Serigne Touba ne bu ngeen dee ñaanati seen borom da di wax li nekk ci seen xol ndax nag yàlla mooy al moo ne alimun bi zaati sudur moom mu ngi ci dënn yi te moo ne xaj sami Allah mu ngi dégg moom yàlla subhanahu wa kon xam na du sàggan na ñaanul yàlla ma ko doomu góor yàlla ñëw may ko doomu góor doomu jigéen ndeysaan mu xamal yàlla subhanahu wa taala ko man day doomu góor laa bëggoon yàlla xamal ko góor baax na jigéen baax ndeysaan mu nekk doomam jooju bi mu dëgëree comme bébétoon na ne bu dëgëree la koy jox jàngu bi la koy may jàngu bi mu dëgër mu jël doom bi may ko jàngu bi Mariama nekk ci jàngu bi nekk fa am jaareeku maanaam mbindaanu yàlla ma yaamaan ca bale ba ma nga ca fomp ba ma nga ca defar ba ndeysaan mu am benn bés yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne mooy fa xaalum lima yàlla woo jibril ruuxulaay jibril alayhi salaatu wasalaam ne ko man day jibril dama la bëggoon confier benn mission muy jànq ba nekk sa jàngu ba dama bëggoon may ko doom naka noonu ndeysaan Jibril daal di mel nit ndax bu melee melukaanu malaada bëtu nit du ko àttan mu daal di asamaan juróom-ñaar ne cëpp ñëw taxaw ci kanamu Mariama ne ko man day ndawal yàlla laa yàlla moo ma yabal ngir ma ñëw may la doom doomu sell Mariama ne ko ah yow day bàkkoo naa la yàlla yow xanaa ragaloo sa borom naka laay amee doom te awma borom kër Jibril tontu ko ne yàlla lu mu namm la ci yow ba pare fi mu yëkkatee loxoom ndeysaan Jibril dëbb ko leen ci poxataan bi Mariama ëmb ci saasi ndeysaan bi mu ëmbee ci saasi mu ne ay man lii fan laa koy waxee lii fu ma koy layale lii kan moo may gëm naka noonu ndeysaan yàlla subhaanahu wa xamal ko ne am na benn euh, ëkku tàndarma boobu bu nekk ci wet gi demal nga teg fa sa loxo boo ko fa tegee ëkk bi dina jébbi si saa si nga witti si doom gi doom gi daal di lekk ndeysaan moo tax bu suñu mbokku jigéen ñi tolloo diggante ñu di leen dëkkal ñuy lekk tàndarma bi Mariama demee ba witt ci doom yi lekk mu daal di ko xamalaat ne ko am na def bu nekk ci wet boo demee ba ci def gi def ba ñuy sonn ba pare mu ne ko nga teg ci sa loxo def gi dina ball nga daal di as ndox mi daal di naan bi Mariama demee def loolu. jéggi ñaari jéego ndeysaan daal di matu ci saas yi wasin ci saas yi tuuma ya nag daal di ku euh, teglante ci kawam ndax nag li mu ku ko dal ku mu ku ne tuuma dina tegu si sa kaw noonu Mariama ne man day jaw ne naa man de lii xaw ma fu ma koy waxee man damaa waroon a dee fii sax benn yoon lii fan laa koy layalee bi mu waxee loolu ndeysaan liir ba toll ko ca beesoo muy Aysa mu ne ko yaay yow doo wax man mii maa lay layal man mii maay wax ku la laaj ne ko dama waral wax ndeysaan bi ñu ko waxee loolu nit ñi continuer di wax moom Aysa ne ca beesoo Abdullahi ataaniyal kitaab wa jaxalani nabiyan wa jaxalani mubaarakan أينما كنت وأوصاني بصلاتي وزكاتي ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجهلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أباش حيا ذلك عيسى ابن مريم حول الحق الذي فيه يمترون مقبلون ويلان Isa nee na ca baa ca besoom ba man jaamu yàlla laa kon la mais du dañu réer de nee na moom jaamu yàlla la nee na yàlla moo ko jox téere waaye ana ban téere injil la ko jox ndax boobu alxuraan wàcceegul mu ne jox na ko téere ndax yàlla la amee yoon bi nag da lay jox téere mu dellu ne yónni na ma fan la ko yónni ci waa banu Israël mu dellu ne def na ma ko barkeel fu ma mun a nekk mu dellu ne moom Insa yàlla dénk na ko muy julli ak di génne asaka giiru dundam mu dellu ne yàlla dénk na ko waajur wu jigéen mu bëgg ko lool nag moom Insa te defu ko nag ko texee di wala kuy jaay doole maanaam ak woyu moom instant mu ëlbatiku di ñaanal yàlla boppam ma nga naan yàlla na jàmm nekk ci man bés bi nga xam ne la mu dellu ñaanalati boppam ci man nga xam ne ci laa génn àdduna kon ñu jàngate ci ne instant génnagul àdduna mu dellu moom Insa ñaanal la ci boppam yàlla nee na na jàmm nekk ci moom bés buñ koy dekkalaat mu dundaat gannaaw ba mu génnee àdduna kon ñu jàngata ci encore ne ku mës a dee di nga a dekki kon yàlla subhaanahu wa taala nee na Insa doomu Mariama jooju waxu dëggam yooyu jarul woon nag ñu koy laataale mbokk yi Insa ku barkeel la ndax nag Insa bu nit silmaxaar bu ñëwee ci moom bu ko raayee day daal di xool ci sensi Insa ku barkeel la ndax moom Insa ku feebar boo ñëwee ci kanam Insa bu la raayee nga daal di wér ci Insa ku barkeel la ndax moom Insa moom doomu mooy yonent bi nga xam ne moom la yàlla tuddee saar ci alxuraan ma andi leen beneen xisa yàlla subhanahu dafa mos a toog ak yonent bi ne ko kaa ma nettali la jaar yonent yi ndax nga bégal sa xol mu ne ko fàttalikul bi Insa doomu Mariama ji di wax naan يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من توريت فمبشرا برسول يحكي من بعدي اسمه أحمد منكو فاتلكم بإنسى دوم مريم جدي وحنا إيه ينواتر يونتي على يعقوب إيه ينبني إسرائيل man yonent yàlla laa ndax nag yàlla moo ma yónni ci yéen ngir ma ñëw ngir ma ñëw jubbanti la nga xamante ne moo ma jiitu woon ci tawreet gis nga ko mu ne ko nag ma di leen fàttali ne am na benn yonent boo xam ne mi ngi ñëw sama ginnaaw ma leen koy bégale bu ñëwee da ngeen ko topp mu ngi nar a Ahmad waaye ba mu leen ko waxee ñooñu nga xam ne dañ ne ay moom ay nitam lañ dégluwuñu ko toppuñu ko ndax dañ ne ah ñun lii gëmuñu ko njabar bu biir la njabar bu wóor la gis nga ko ma yaakaar ni nit ki soo ko bëggee da ngay wéy ci ay ndigalam waaye ñoom day wéy ñu ci ndigalu Insa kon buñ nee ñoom Insa seen nit la dina xaw a doy waar loolu kon loolu bokk na ci barke Insa. ba noppi benn tur bi nga xam ne mooy ahmad ñëw ci alquran insa moo ko ci andi te ak boole tur wala mu tënk yëpp kon mbokk yi loolu laa leen andi mu jar nag ñuy fàttaliku insa saa su ne di ko xamal ñi ko ñi ko xam di ko xamal ñi ko xamul ndax nag yàlla moo ci alquran yàlla moo ne ci alquran bu leen tàqali sama bu leen tàqali sama euh, sama yonent yi yàlla moo ko wax ci alquran kon yaakaar naa ne laa nu falliku bayna ahadin min rusuli kon ndeysaan yonent yàlla yi warul leen a tàqale kon loolu laa leen andi noonu lu ci jub yàlla la lu ci jub lu ci dëng man mu gàttu àll bi nii la di gërëm ñi fi toog yépp di ñaan yàlla ñu teewee ko dawal ñu baree baree bari di wax sunu oustaz mention spéciale di ko sant di sant jabaram di sant njabootam yépp ak waa këram ak ñi jógee Kaolack teew si teew si fii ci conférence bi kon asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. yaa sayda takbir laa ñu woo Nduwo yaa Seyda Fatimata bintu Rasul Diagne. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu eh, mbokk yi damay ñëw rek topp thème yi nga xam ne daaw jéeg daawaati jéeg maa ngi ko doon def daaw mbas mi mbas mi tey ma bëgg a ñëw rek indil leen. loo xam ne dafa xew nekk actualité yàlla moom dundoon na ko bu yàgg asa luy euh, mbokk ji maanaam njaalo ak tuumaal dem boo xam ne mooy yëngu dëkk maanaam juróom juróomi saar yi sooratul Nuur juróomi saar yu dëkk yi ci laay ñëw te di leen fàttali ne sóoratu Nuur yàlla daf ko wàcce <coughs> euh, juróomi aaya yu njëkk yi sóoratu Nuur yàlla daf ko wàccee bi nga xamee ne tuumaan la ko suñu yaay Aysa <coughs> histoire boobu bu ñu ko naree wax fii day gudd waaye tuuma du ñu tuumaloon suñu euh, yaay Aysa moo tax en partie yàlla wàccee loolu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 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقتلكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليشهد أذابهما طائفة طفة من المؤمنين الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم yàlla da lu ñuy wax ne suuraata ni nii bu ma wàccee farataal ko ci biir suuraat la ay laayaale ci biir yu ñu faram fàcce ndax xëy na ngeen fàttali ko mu ne njaalookat bu jigéen ak njaalookat bu góor ne ngeen leen doon téeméeri yàgg ne ngeen gëm ngeen yàlla gëm ba su penc te ñooñu bu ñu leen di dóor bu leen leen yërëm ci li diine ji te na ngeen am mbooloom jullit mu takku moo xam ne dina fekkee loolu mu ñëwati ne njaalookat bu jigéen ak njaalookat njaalookat bu jigéen njaalookat bu góor du takk lu dul bu jigéen wala bokkaalekat njaalookat bu jigéen kenn du jël comme soxna ku dul bu góor wala bokkaalekat te xam ngeen ne loolu daganul ci jullit mu nga xam ne nag dañuy gis ay jigéen di leen tuumaan di teg ci ñoom loo xam ne amul te indiwuñu ñeenti seet di leen tuumaan ñu ngi njaaloo te indiwuñu ñeenti seet ñooñu dañ leen doon juróom-ñetti fukki yàq ndaxte te bu ñu leen jëlee ci fenn bu ñu témoigné fenn ba abadan bu leen kenn jël ndax ñoo ne yàlla moo ko waxal waxuma ko kon njaalo euh, li tax yàlla jiital euh, jigéen azaniyatu la jiital lu tax parce que bu jigéen nanguwul njaaloo la jigéen rek mooy indi njaaloo bu nanguwul rek njaaloo du am jigéen ñi ah commencé par sama bopp sas wu réengoo yàllaa ko wax moo ko defee noonu nee na azaniyatu mooy jigéen moom la jiital au lieu mu jiital góor ñu seetlu tamit ne ci relation ñaaroo yooyu ñu ci ëpp doom yi ciy dugg dañ leen di jox tur yu mag ñenn ñi Mouhamad la ñu tuddee bu dee góor ñenn ñi ñu tuddee ay tur yu bu dee jigéen tur yu tur yu mag na leen góor ne Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam soxlawul yooyu tur ci doom yoo xam ne dañoo juddoo ci njaaloo soxnawu ko ñi nga xam ne dañ leen di dóor téeméeri yam xam nga ñooy ñan ñi nga xam ne jëkkaguñu am di njaaloo mais bés boo déggee am war a yóbbu ba ca àll sax gas bu ma ko dugal la ba nga xam ne bopp bi rek moo def ñu lay door ay xeer di la sànni ay xeer ba nga dee ba nga faatu loolu mooy boo xam ne ku mos a sëy dafa dégg alxaaj yi yàlla téeméeri yar leen koy def waaye yow da ngay gis ay xale yu góor am rek jànq boo xam ne na dañ koy labat di wax sama jabar sama jabar di def ak ñoom comme si seen jabar la mais bu ñu yaakaar ne yàlla daf leen tàkk ci njaaloo kat la ñu wax yàlla moo ko wax man wax moo ko njaaloo kat la ñu wax ñi nga xam ne nag. dañuy ñëw di di joxe ay seede naan diw def na nangam diw def na nangam te nee naa indi lu ngeen di seet ñooñu waxuma la doo ngeen leen di dóor juróom ñetti fukki mais kenn dootu leen faaj kenn dootu leen woowati naan leen kaay leen seede nangam loolu am kon par ab abadan wala yàlla kon euh, mbooloo maa ngi sama bopp di leen dénk. mais njaboot gi am ak ñun suñu bopp ndax kenn xamul seytaane dafa bari lool nañu moytu loolu ñu tuddee njaaloo muy loo xam ne yoon bu gaaw la bu doon ci dëkku xam ne charia la ñuy def di kon ñii jéem koo moytu di ñaan euh, yàlla yàlla ñu yàlla teg ci yoon bu baax yi parce yàlla rek mooy jubal yàlla ñu yàlla teg ci yoon bu baax yi ba ñu mën a jubal suñu di ñaanal na ko yàlla dindi ku fi indi lépp luy luy tawat wala lépp loo la na ko yàlla dindi di leen balu ak di leen baal parce que ah maa ngi wax yenn saa yi dafa yor ci tànk ci nit ku mel ni yow yow yaa tax mu jóg te kii wax yàlla la kon maa ngi balu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kii tënk nag euh, suñu ustaas xam nga ñëpp na. di ko ma wax ko damay bañ a ñaan ñaan yàlla fekk mais oustaz mu lay ñaanal gudd fan ak wér gudd fan ak wér lañ lay ñaanal yàlla yokk sutura si ak teraanga ci yokk xéewal yi bàyyi laa ak si soxna bi la ñaanal la ñaareel nii asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu te bii yaa ngi lay laal nag biir nag biir macha allah li may ñaanal ñoom ba lépp. soo demee ñu woo yaa say laa ku lay saw. waaw. وأعمل خيرا بلساني يفقه قولي sama mbokk jullit yu tedd yi maa ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew rek ku nekk sa tur ak sa sant ci nuyoo bu ñu subhaanahu wa taala boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa am solo ndax thème bi kat daaw la programme woon waaye yàlla dogalul daaw ci conférence ñu indiwaat thème bi dégg ren te mu nekk actualité lool te thème bi di tuuma mu tombé lool nag dajeeg jamono ndax kat réew ñi suñu jamono bi tuuma yi bëri nañu tuuma yi bëri nañu lool. te li gën ci tuuma yi tey dañ lay dugal ci rajo yi ñu la ci télé yi dugal la ci réseaux sociaux yi nga wër àddina xanaa ñoom dégguñu boo demee ci suuratu Hujuraat aaya fukk ak ñaar suñu borom mi ngi ciy wax yaa ayyuhal laziina aamanu ijtanibu kasiiran mina zanni inna ba'da zanni ismun ee yéen ñi gëm yàlla gëm yonent bi mooy tudd ko leen lenn ci ñaaw njort ndax ñaaw njort kat mooy indi tuuma te tuuma yam nañ ci yàlla musal ma indi la nag benn xisa tuuma bu doxoon diggante yéen maa ngi woon Hamza ca xaritu ak borom këram Fatiha Fatiha nag nekkoon ku baax ku bëri alal milliardaire mu tabax benn benn palais bu rafet. tabax ca wet ay néeg maanaam ay appartement ci dalal ay surga wàllu fàgg yaa oyof bu mu oyofal boppam ak suufee bu mu suufeel boppam tax na moom dëkkul ca dëkkul sax ca ca palais ba waaye ci néegu surga yi la jël appartement ndax jamono yooyu ñoom borom Mbàkke ñu waa alal yi dañ daan samp ay drapeau ci seen biir kër yi pour di ci dalal ay doxandéem am bis nag mu dalal benn suba bi ñu demee ba guddi Fadila dem waxtaan ci ay xaritam su dee bi daal di tëdd ba guddi gi xaaj mu jóg di tuuri ndox ba mu tuuree ndox nag ba wàññeeku mu jaawali néeg ndax néeg yépp loolu bi mu nekk kàcce benn buntu rek. bu gis seen bi mi ngi tëdd di nelaw mu ne eh fii de néeg bu ñaata génn fi muy wàññee koo di génn rek mu dajee fatiha mu daal di tiit ma ne fatiha waxu ko dara waaye moom tiit gi mu tiit tax na moom ci guddi gi la takk ay bagaasam dem fatiha daal di ñëw daal di attaqué yéen mu ne ko yooyu yaa ma tudd ko yow ak fi ma jaar ak yooyu yëpp dafa amul lenn looy def lu dul di jàllal sama suuf Sarkiar bi kon nag di yëf yi métti Sarkiar lool ba seet coow nañu pour màgg Sarkiar daal di ñibbi kër Baye njëkkee yi nga xam ne bi ñu fekkee jàmm ñu ne dañu wutali bu xaar yi da ngay rendi seen gileem di naan seen i di fecc di tëb di def lu nekk ah wutali nañu bu xaar ak i mbokkam Hind ak i mbokkam li ñuy dem yëpp bokk fajar yi ñoom ngi fecc ñu ngi tàcc ñu ngi woy li nu ma mi ngi ne tekk ne boppam dara papa ji seetlu ko ñu ñëw ba ci moom mu ne ko yiñ man de seetlu naa ne sa morom yëpp a ngi tax dara yi waaye yow yaa ngi leen tekk rek mbaa du yi ñu ne tuumaal kat papa yow yaa ko def mu ne ko papa soo gisee ma tiit jaaxle damaa xam ne tam kenn ñu fekk nit la rek lañu te moom lañ waaye bu ma wóoroon ci borom rabbi samaawaati wal duma am dara ma ci papa ma def lii bu dem ci boro yi mu ne leen bu ñu yeggee dina am lu def su ko boobaa bi bi tumbee ñu soog a tàmbali ñooñu ne waaw ndax jàpp ne ñoom ñu jël ndam. bi ñu demee bay yegg après yëngu daal di dàq fasam ba fu sori gestu gisul kenn mu seet tàngal mu yëy ko ba mu des foofu bi mu takk ko dugal ko ci gafaka fas ñu ñëwee ñu dalal leen ci benn sàmm mag ba te néeg bi dem ni waxaabe bi say gan yegg si nañ waxaabe bi ne sarax ci sàmm rek ne leen ay gan yu tedd yu jóge ci dëkk bi kenn fi muy daaneele rek papa yi dina leen am na lu ma la ko mu bu di koy jël bi dëgg muñ mu ne leen xooku tàngal ba ci gafak faras mu ne leen yéen yéen xale bu jigéen bi ngeen ko indi kii ngeen tuumaal waa ngi kii bu kuy njaaloo mu ne leen kii bu kuy njaaloo surga ba ngeen dalaloon moo jaawale léegi waa ngi kii bu kuy njaaloo te firnde li ma leen di waxtaan kii dina am doom boo xam ne buur lay doon te maaw yàlla lay doon naka mu wax loolu rek xind ne gees ci Fatia mu nekk doom buy nekk bu ma ko amee woon suñu diggante na fii Fatia topp hind ba son hind jamono yooyu moom ma nekkoon buur maag mu ne man de damaa joteeg sama soxna te xam naa ni yéen bi ci man la man ngaa dawal nga ñaani ko ñu may la ko soxna balaa ñu la caan ci la Abu Sufyaan dem ñaani jënd ñu may ko ko yàlla def ba ñuy taw ñu taw la doom yi boobu ñu wax Muawiya ibnu Abu ibnu Abu Sufyaan waa sama mbokk jullit bi kan moo mënoon seetal jënd ci tuuti kan moo ko ci mënoon seetal wante yàlla seetal na ko ci ba mu set wecc lii nag moo am ci suñu jamono dañ lay tuumaal toroxal la tëj la ci kaso bi teewul ñëw ci daal. lii laa leen ko indi woon. macha allah allah li mu indi woon am na solo te moo xew ci jamono ji muy tuuma bari na lool waaye nag yàlla moom am na ñoo xam ne ku dara xaaru sutura yàlla xaaru sutura kon daanaka jotaay bi mat na kenn rek moo des mu yaase daa Ramatoulaye Djigo bu tawee ñu takkal ñeeri seen médaille d'or yi ñu ñaan dal di yéereeku kon yaase daa Ramatoulaye bismillah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 taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi tey dañ leen fi indiloon thème am solo buy waxtaanee kenn ci sët yonent bi sallallahu alayhi wa ñu di wax Ali ibnu Husayn am na nag ñu koy dàqantalee Zeydul Abidin moom Ali ibnu Husayn mii daf ñoo bàyyi ñaari ndénkaane yu am solo. bi si njëkk mooy ñuy baalante suñu biir ñaareel bi mooy bul jàpp ni ci askan bu baax bi nga bokk moo lay dugal aljanna ñaari ndénkaane yu am solo yooyu lañu kii ju Ali ibnu Useynu bàyyil di Zeydul Abidin moom Ali ibnu Useynu mii nag bés def na jaamam bu jigéen ngir mu sottil ko mu jàpp ni ko jaam bi ji sottilee muy jàpp ci biir jàpp bi satala bi rëcc ci kaw Ali ibnu Huseyn Ali ibnu Huseyn mer ne jàpp jaam bi jaam bi ko baaraamam bi ne ko wal kaazimiina al-ghayz yàllaa ngi dig aljanna ñi nëbb seeni mer Ali ibnu Huseyn ne ko kazzabtu ghayzi nëbb naa sama mer jaam bi bi waat ko baaraamam bi ne ko wa aafiina ani naas yàlla ngi nit aljanna ñuy baale ali ibnu Husayn ne ko afartu an ki baal naa la jaam bi xool ali ibnu Husayn yaramam daw mu ne ko inna allah yuhibbul muhsinin yàlla bëgg nañuy ali ibnu Husayn ne ko goreel naa la moom ali ibnu Husayn mi ba tey bés dafa ñëw biir màkkatal mukarrama ji ko waaf kaaba bi màkk gépp génn di ko way ñii di ko tagg waykatu arabu man bi faras daf joxar bi ko baaraamam bi ne ko haada ibnu fatimatu in kunta jaahilan taarif fil xill wal xaramu wal batxaahu taxtahu maa qaala laa aqul illa fi tashahudihi di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba naan ko wallaahi law laa tashahudu la kaana laa uhu naamu moom ko naan yaay tudd Fatima yow ku la xamul xillu bi xam na la xurum bi xam na la jëmm ju baax a ngi nii ju tabee ngi nii waat naa ko yàlla ni bu tàyyi amul woon mu ne jëmm ji musul wax jën ci gémmañam ndax booy taaye nag ni nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu jaamu dul yàlla kon jëmm ji déetam mooy waaw ginnaaw gi am li Ibnu Useynu wëree gi juróom-ñaari yoon tëdd ci wetu kaaba gi di jooy di jooy jooy yu waa Màkka dar ko ne ko moo Ali ibnu Husayn looy jooy yow ngay sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa yow lan ngay mu jub taxaw joxal bi leen baaraaman bi ne leen xanaa déggoo leen li yàlla wax ci alquran fa idaa nufiqa fi suur falaa ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun yàlla nee na keroog yombal xiyam ba malaaka bi kon gis tëdd askan amu fa te duñ ko fa laajante te bu fa askan amulee laajante wuñ ko fa nan la ñuy xamee ni ci rasulillah laa bokk allahu akbar sa gëm sëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax lii kon ñun nan lañ war a def mbokku jullit yi lan lañ mën a jàngatee ci kàddu Ali ibn Ousseynou bii moo di ne bokk ci askan bu baax. taxu la dugg aljanna jaam bi lan moo koy may aljanna mooy jëf yu baax yi muy jëf fii ci àdduna ak yërmande yàlla ki jàppale ci askan bu baax du ñu bokk moo koy dugal aljanna ba tax ni mu waroon a jaamu yàlla du ko ni defee wallaahi moo ngi nax boppam ndax yàlla xamul askan xamul yax rëy ku ko jaamu la xam dafa metti nag nga jàpp ni yaa ci lu baax fekk yaa ngi làpp ci géej yu réer yaa ngi ci yàlla muccal mbokku jullit yi nañ jël askan ak yax bu rëy tegee ko nële te jaamu ji yàlla ndax loolu dong mooy mun a muccal keroog yawmal qiyaam waaye du askan bu baax du yax bu rëy nañ delloo suñu xel ci yàlla te xam ni yàlla rek moo fi nekk moom kese moom kot moom dong keneen nekk fi dul moom lii nag lañ leen indiloon tey ci Ali ibnu Husayn lépp lu si jub ñu gërëmee ko yàlla waaye lépp lu ci dëng it ci jëmm ji taxawoon doon wax la yal nañu yàlla may topp ak dégg ndax mooy li am solo allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad innaka hamidul majid salaamaaleykum wa rahmatullah takbir ya sayda takbir allah ya sayda jigo li ñu indil am na solo kon daal nekkee dem àjjana nekkul ci loxo kenn nekk loxo yàlla kon nañ góorgóorluwaat góorgóorlu ñuy sant yàlla bu baax nag mais na ni ñu si woon yàlla mënaal na ko kon bu defee seen ñoraay door yi ah bu defee rek am suñu yenn papa ñu jox kàddu rek jox suñu papa mu am suñu xar ñaan. ñaanal leen suñu papaay daara ndax dama naa bàyyi ba ñuy tëj ñu ñaanal leen ko ndax mooy papaay daara ji yàlla def na nekkatu fi ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana euh, suñu imaam Mansour ka jóge ba Kaolack di imaamu raatib dina ñëw def ñaan ñaanal leen ko waaye duñ fàtte Asra TV ndeysaan daan toog fu ñu jàkkaarloo yàlla def na mu làkk moom it dinañ ko boole ci ñaan incha allah yàlla xaru ko àjjana kon bu defee rek ñu woo yaa Seyda yi takkal leen seen i médaille d'or yaakaar naa bu médaille am jawaa am na médaille ci wàllu bu nekk waaye yéen de su ngeen takkee seen i médaille ñu ne leen ngeen jëlee seen médaille bu ngeen rus wallaay ndax nit am na médaille d'or ci mu ne waaye fu ngeen jëlee seen médaille yi ngeen ne dañ doon tere alxuraan dañ leen conférence ba takkal ñu médaille d'or yéen de su ngeen takk seen médaille yi si kii waaw baax na su pare naa lay woo naa la woo yow. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهناك يا من ورفقا صلي على محمد Saaru Sow. yaa Seyda Arso Rasul yaa Seyda Fatou Diagne. yaa Seyda Ulay Sow. doye tey nan nga jàngatee nan nga jàngatee tey bi ak conférence bi. très grand reportage. reportage hmm. bi. man man d'une part j'ai été parce que. gis ah. tey ji suñu moromu yaay yi tey. Oh. taxaw di jàng alxuraan. di tari alxuraan. di firi ay hadis si Yonent bi. lan lan lan nga sentir ci moment boobu noonu. ah si lan nga sentir ci moment boobu noonu ngay gis suñu yaay di def mais ah beaucoup d'émotion c'est vraiment man li ma gis nii li ci ma jëlee fi la waaw bi ñu non vraiment. bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant euh, sama xol nag dafa sedd buy li may jëkk a wax nag moom ne sant naa yàlla bu baax a baax a baax a baax ñëpp sant nañ yàlla ndax euh, doom ju mel ni oustaz Mbaye bu la ko yàlla dénkee war nga sant yàlla Euh, si beneen fànn bi nag xëy na wax wax bi moom mënta set ndax séeréer bu juddoo ci arrondissement Diafara ci diggu Diafara sa sa làmmiñ moom waaye nag euh, comme ni ma ko waxee rek sant bu baax a baax ndax sama xol sedd na guy xam naa ne si Omar Mbaye dëgg rek moo ñu boole woon ànd ak moom di liggéeyal Serigne Touba suñu Omar def na ci man lu bëri dëgg la fekk na ma doon taalibe waaye nag mottali na ma suñu Omar xam naa ci moom lu bëri kon njabootam buñ melee nii Aysatu nekk fii di seen jigéen Pam Mbay mii nekk seen mag daayira ba nekk jàng ñu sos ko muy wa taxawanoo alal birri wa taxwa Omar Mbaye jàpp na si lu bëri Omar Mbaye ku soppoon Serigne Touba te am naa ñu liggéeyal Serigne Touba ba noonu la wuy ji boromam njabootam yëpp si alxuraan la leen la la leen teg amul kenn si doom yi ci nasaraan kon nag gëcc ngaalam waaye li ma ci yokk mooy. daara daara ji nga xam ne maa ngi jàkkaarloo moom soxna Kamara euh, jiise ko yéen gasi ngaalam am na lu ma leen mos def na ngeen ko muy soxna may ngeen ko soxna nit nag boo demee may ko soxna boo amoon ajana deseloo ko dara kon nag man de bés ni ki tey gën naa leen sama doom ji ngeen jàppale ko teete ko ndax wax dëgg yàlla sama li ma li ma gis fii sama xol dafa sedd buy gis naa kilifa yi fi toog ñëpp ku ci ne gis naa man lu mu euh, gi ma ñëw fii tey dafa doon lu mënta ñàkk dama doon weeru koor bii du ma ci gën sama sa sa sama buntu sama tool mën naa wax ne at bu yëg dama ko dox di yéeg ak wàcc rek ma def ay tournée waaye nag bés bii amul lu ma jaralul aw ma benn bés bu dul bii tant maa ngi maa ngi dund njabootu Omar Mbaye fépp fu ñu ma oo ci lépp lu ñu nekk rek maa maa ngi seen ginnaaw wax dëgg yàlla seen papa moom euh, mënuma ko fay kon euh, euh, imaam maa ngi lay sama doom ji di dënk njaboot bi wax dëgg yàlla sama fas seet na buy gis naa ni ngeen taxawoo njaboot bi ndax yëmu leen yëmu leen rek ci mu di leen jàngal gis naa lépp lépp lu ngeen ko defar rek man yëngu kon nag yàlla mi nga xam ne moo yore lépp yàlla yéen yàlla fay yàlla nañ fekkee da ngeen di jëlee lépp képp koo xam ne ñëw nga fii indi fi aajo indi fi tawat yàlla na ko yàlla saafara di tere sëñ Tuuba. jërëjëf papa kàddu gi rafet na. yal na yàlla guddal saw fan dëgëral sa taxawaay di ziar fay ak suñ mbokk yi jóge dëkk ba yëpp ñu ngi jël ziar bi di ko ci loxo Ousmane mu joxal ñu ko ñëpp kon bu jox directeur monsieur ñu ngi kàddu ci turu waa kon ñu ngi bisimilah rek jox la kàddu gi papa mu ñaan ndax suñu papa papa Sow mu ngi fi di papaay Daara Daara al Ihsan bu cité Fadia ñoo dem ñu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñoo ngi am mbégte bu baax baax tey fii yaakaar naa bu ci tey mooy benn yoon teew nañu ay at yu bëree bëri. am na jamono ju fi teewoon ndeysaan ànd ak euh, bu baax El Hadj Mansour Sow. foo ñu fàttali ko ñaanal ko moom. yokk yërmande ci moom. maam Kantan laa fi ànd ak moom ci ndigal imam Babacar xam nga tey dafa nekk fu sori. waaye ñu ngi am mbégte di am seede yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati jëlee ko ci imam Raati kontaan te ak mbégteem si yéen ndax kenn ku nekk su yàlla dénkee mbooloo def la nga nekk imam. nangul la ko mbooloo toftaloo sa ginnaaw soo amee nit bu jógee xaw a sori waaye xoolul distance ba di ñëw fi nga xam ne yow yaa koy jiite néegu yàlla bu la yàlla wërsëgalee dégg loo nga nekk njiit la waroon na def lii moom ñëw di ko defal yaakaar naa kooku amuloo lenn lenn loo mën def luy sant yàlla ñaanal Oustaz fi ñu jógee ñëw jumaa Nations Unies ànd ak Mouhamadou Camara ak ñu sos daara di ko yëngatu te léegi gis nañu wax dëgg yàlla dara wàññeeku ko ci dafa yokk te loolu alhamdulilah ngi ñëpp wax alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu wér parce que nit buy yàlla te xamul na muy jaamu yàlla duma moo ci am waaye bu la yàlla dimbalee ngay jaamu sa borom subhanahu wa xam la cee farataak la ca sunna yëpp sowee te ustaas lu ne def ustaas mu ngi gërëm la sant kàddu mu te bëri na nga jàpp ne jumaa Nations Unies imam Bara Gaye ak ñi nekk ci ginnaaw ak waa cité Nations Unies yëpp ñu lay gërëm di la sant di ñaan dana yàlla guddal sa fan dana yàlla barkeel na liggéey bi ngay def ñun ñoo ko defal ndax ñun ñoo war na ut nit nit ku nekk ci jàkka ja jox ko bërëb ne ko jàngaleen jàngaleen ñuy ñëw ci jàkka yi ñu xam seen diine yow booy ko defalee am na jàpp yal fay la yal na yàlla barkeel la ni sos yoon bi nag nañ jàpp ne bés bu nekk yàlla mu leen di ko fa jaar dañu am jàmm te ñoom ñu ko def ànd ko bi ñu ko amoon yéene ak yi ñu koy taxawee yàlla bu bon fay ñu leen bàyyi yàlla ñu yàlla fay leen ngi am mbégte bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon jërëjëf ñu ngi kàddu gi rafet na. jërëjëf yàlla na yàlla ko def sa taxawaay bu defee ñu dalal Pa Mansour Ka imaam di suñu baay di suñu lépp bu defee nag mu ñaanal mbooloo mi ñaanal suñu papa daara moom it nekkoon baax. daan taxawu daara ji yàlla def mu nàpp ñu koy ñaanal yal na yàlla xaaraaje moo yor ko suuf si doom ñu ngi sant ñëpp nag képp fi teew góor ak jigéen mag ndaw ñu lay di la di sant presse bi Salam Vision gis nañ taxawaay bi KS allah taxawaay bi depuis démb ba léegi lépp rafet na foofu moom suñu kër la kon jóg taxawaay bi rafet na Mansour gis nañ lépp yàlla yàlla feeñ leen TFM e gis ko xëy na ren la yàlla dogal ñoom ñu fi ñoo gis nañ seen taxawaay bu fi teg tey macha allah RFM ñoo gis ngeen ko ñu ngi fi waa rajo AFM ñu fi woon kon boole ñu fi teewee sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla ñu am fay yàlla nañ yàlla fay imaam bu defee imaam Mansour Ka ñu jox la kàddu gi nga ñaanal askan wi ba déwén incha boo ko jàng Fatiha ko wala benn juróomi ñaari naan gannaaw ñaan ko yàlla wóor juru Modou Mbaye mii nga xamante nga daal di gën a am gën a am ak su ma ko ko yàq di gën a am ak mboolem ñu bokkoon ci yéen di gën a am salatu wa salaamatullahi wa salaamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taslima mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa damay wax rek la mbootu waxoon naa waxaat fii mbootu dafa toog dégg ñu naan xoloma diis xoloma diis xoloma diis mu ne laaj la dama mbootu man maa xam ne xolam diis li ma wax mboq bi nga wax loolu la ah dañ ko suuf gileem gileem joggi mboq la ko doon xarala gis waaw dañ ko suuf gileem gileem joggi waaye man tam bu ma toog nii tey li ma dégg tey ci daara dégg dégg ba bu ñu wax leen dafay dafa doy wax ndax man boo toogee ba léegi damay jàng te boo toogee ba léegi damay jàng daara di delloo njukkal ñu ngi di ñaanal yàlla ñu ngi seedeel ne bokk ngeen yi yàlla gën ndax say génne say génne mooy xare ndax dem ba laq bare bare bare bare bare waroon nekk leneen nga bàyyi si bi yëpp jël sa temps yëpp jël sa alal ut ustaas di ko fay ngir lan muy dangaa nga xam si diine xam say la jaamu yàlla bu rëy jaamu yàlla dana koo gën a wóor jotaay bii nga def nii de jotaay boo xamante ni yàlla gërëm na ko ñëpp gërëm na ko tabaarakallah waxoon naa fi départ ba ma ne te bu ma fii Dakar bokk ci waaye nag bokk naa fi ndax man mooy naa daara yi te man ñaan daara ci yàlla ñaan ah. yëpp ah comme ndax Mawla Mbaye ay daal ñu ay mara jógee ba gën a toog ngir biir moo dem ba ñu koy ñu koy yàq ma léegi waa ji moo saaw ànd ak magam aminta ñoom ñëpp ak seen ak doom yi ak doom yi ñoo fii ci ak suñu man seen bu ñu leen ndax bee di im alaay muur ka xaarim di kilifa ci mu dem ba ñu kon ni mooy rëcc ñun dëgg la alxuraan a kenn ku nekk foo nekk fi nga jaay nga waaye nag ñëw nañ ngir ndoxee leen gis ñu gis mu ne nag li nga wax rek aw ci li nga mooy ñooy meññaay mooy euh, yooyu boo ko fekkee sax xool ba jeex da nga waaye boo ko defee taw suuna mu def doo ko yëg moom day boo ko def pour fii doo ko yëg waaye boo ko def fii doo ko yëg ndax ku xam bàyyam am nga ko wala léegi boo leen ko xam jàngal ko alko ci àjjuma ba pare moom bàyyam kon moom bu ñëwee fii jaakaar la ci kër yi xam naa ne ma am ko mooy premier ma wax tarbiya moo xam-xam lay wut moo nekk ci dëkkam booleem lu soxla ci daal liggéey muy soxla sëriñam da ko ànd muy root na bale na fekk na ay xale man fekk na da yi ñu yëre lépp luñ ma yu moo fa ko mu daan root mu daan sànq xale yi di raxas boor di bale moo tax li am nii bu xam-xam moo ko xam-xam njàng moo koy bay waaye traité yow mën na yàq loolu barke la danga yàlla barke moo am solo lépp lu mu mu fekk moo doon naa ko yàgg na moom mooy njëkk a ñëw fi yàgg dara ji dina fàtte fii ndax am na si dee muy bàyyi am na si dee muy sëy ndax bàyyi bàyyi nay mais moom màggee di ko dem nay ko dem nay ko may lii kon ndaw ñi am na ko léegi ci jigéen ñi xaqu wéyjur wéyjur Cheikh Anta Ba Malick dafa am bis ni am benn xew fii ci Ndefleng am benn góor bu baax ànd ak doomam yow rek suñu abdoulaye mu ne ko daa bëgg ñaar la fa doom suuf moom toog suuf moom góor yi sabat na na xale yu ñaaram man man xaw ma lu gën a yow kon ñaaram yàlla man rek pour wane la ngërëm la wëndu mooy lépp kon xale yi nañ bàyyi xel ci soxla yi nañ bàyyi xel ci ngërëm dafa ngërëm ma la ma ne wala leen a biir am ngërëm moo gën ngërëm moo ko indi fii ngërëm moo ko may lii waaye li ma jox rek mooy maa ngi ñaax suma mbokk jigéen ñëpp soxna yëpp nañ jéem a góorgóorlu mel ni yéen ndax dëgg-dëgg li ngeen jaay fii du ngeen xotal du ngeen takkale da ngeen ko jàng xam ko ndax ku xam am xaraf dégg xaraf xam nañ ne yàqu leen baatu kon njàng nañ njàngum góor leer lañ ko jàng may ñaan mboolem jigéen ñi nekk fii ci commune ak feneen pour fii la ci génn yéen di tey bu faatu la digle wala ndax xam nañ ne am nañu ay jigéen yu am pas-pas ci jigéen ji taxawu taxawaay boo xamante ne bii wuti nañ ci àgg ci seen ginnaaw ci jigéen yàlla yàlla fayal da ngeen dëkk ak seize ak seize dëddu Xadija dëkk Fatou bi toll ak Aïcha yàlla ngeen koy ñëw incha allah ngeen koy ñëw ndax li ngeen def nii ñoom ngeen dimbale ci diine bu jëlee ñëpp meloon nañu leen kon jigéen du taxawal kon kon kon doomu du bon kon tarbiya baax mooy fas ci jiitu benn jigéen bu baax rek moo gën téeméeri góor yu baax jigéen lu wax surtout moo ko yàq baax moo ko yéen day yàq jaram yéen yàq la Chine yéen yàq na réew ñëpp naa ñu réew déwén dara yàlla yàlla am na leen doom yu ñu tànn ci réew doom yoo xamante ëllëg dina gën ci réew mi ñu yor réew la leen jub ñu may yoon ndax yéen da nga xam ne yoo wax dañ leen digal lu baax dañ leen xëy lu baax dañ leen wax lu baax ndax yaa ju baax mooy dimbali doom ju baax te doom ju baax mooy defar mooy defar ca kaw suñu yi yéen nag bokk ngeen ci nga xamante ni yéen bu jigéen ñëpp mënoon ngeen wallaahi réew di mel nii am na ko wax bi léegi bëri yéen déggal alal nga lekk ko jaay ki jàmbur lekk ko soxla ko jàmbur nga ne jàmbur lekk ko dem fekk soxla jàmbur nga ànd ak moom tas yi jàmbur takk jawante yooyu ku am njaay yu baax mu jaay mu mën a nii du du ko def kon la ma yéen ñu leen ndokkale man di seen daara man bokk naa ci ci saa yàq baax incha allah dégg nga am yàlla moo la ñu leen ndokkale yaa taxawul yàlla yàlla barkeel siif liñ déggee mooy góor yàlla yi coow yàlla yàlla ko déggee yàlla yàlla bu ngeen ak si njaboot bii ànd ak ñu si waju ndax jàngale mag dafa joxe kon mag ñu suñ jàngee tey ba xam ñu xam vraiment boo gënoon nit ñi rek ñu am waaye sag baax sag dal sag yar moo tax ñu mën a xam waaye ba mu am soixante ans cinquante ans bu dee ba xam nga dëgg dëgg jàmbar la waaye tey ñaa kenn ñu jàng jàngal ko ndax bu fekkoon ku tayal maa muy kuy kuy gëddee maa muy ku xaw a fekk ak ngeen xam waaye nag yar ko ci ay kàddu yar nañ ko ci xam-xam yar nañ ko ci jotaay bu rafet moom gerte nga lool li li bàyyi jox ne dara wax rek ñu leen di dégg Modou seen seen ustaas la waaye seen doom la seen rakk la seen sët la kon dëgg la ko ne ustaas la mën ngeen waaye jàppee ko doom jàppee seen seen su ma waxee ni ñu ko sotti teel nañ ko dañuy dëgg daal mën naa wax ñu daal xaw ma loolu day daal dañuy dëgg dëgg ndax ñun amuñ lu muy diin te Sénégal bu ma fee dëgg dëgg dëgg xam ne dëgg dëgg ñoo Sénégal dina ko taxaw Sénégal indépendance taxawul Sénégal islam taxaw islam tax na ci si bii kon bu ay ñu ay soxla bëgg a taxawal islam dëgg dëgg soxla yi amul depuis yéen kenn mënu leen a fay si yéen a gën ñëpp wallaahi yéen gën ñëpp beneen góor dañuy def ba nga fekkee nga jàng alxuraan dina nuyu boo xam ne ku jàng alxuraan teewul ko nuyu ndax yàlla yoo xam moom yàlla yoo xam ne doo ko nuyu alxuraan ko yàlla yoo xam mu ne ku jàng alxuraan moom ah doo ko nuyu ndax ku jàng alxuraan yàlla yoo xam moom mu ne ku julli ku julli yàlla yoo xam kii jàng alxuraan yàlla yoo xam moom waaye ku julli moom yàlla yoo xam kon mu ne ñaar ñii di di leen di fay ñëw kon yéen kay bokk ñi ñi nga xamante ni yàlla ngeen yoo xam. wala boog yàlla wax ak yéen dafay buñ génn yàlla ngeen waxal yàlla wax ak yéen waaye yàlla yëpp di yiw di teraanga di sutura di barke di wér di fan wóor yàlla yokk na ma xam ne ba koy ñoom ñoo koy ma xaamay fàttali biir rasul ak ay ay ay ay ay barke yàlla yokk na yi ci ci ngeen ngeen dalee alxuraan tey ndax tey ku xam ne tey ñoom bi te am alxuraan dalee na alxuraan tey yàlla yàlla daal di ko defal yàlla yàlla ko wóor wóor sànni woon ci maa ngi leen ne kàddu gi yëpp ñëpp bokk jàng Faatiha ayatul kursi Lixlaas Falaq ay Naas Saaru Faatiha dañ ko xaj bi ci sallallahu alayhi wa sallam ñaan ko Alxuraan yàlla tuur ci borom yëpp ci mbaaxu yoon. astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah rahmaan rahiim maliki yawmi diin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا اللهم صل على سيدنا محمد والذي لا شرط مطلع عليه رحمة الله لا اله الا هو سنة من بشيء من عميات مصر بما يتنبه ولا حق الله وصمد قل هو الله حق الله وصمد قل هو الله ربنا وصمد وبشير قلوب الخلاق من شيء ما خلق من شيء وبما تدم رعب بالناس ملك الناس إله الناس بارك على مسجد سيدنا محمد يا من أحسن الجميع بارك كلنا يا مولى كل السماء ويا سيدي يا مولى اللهم صل سبحانك اللهم jërëjëf papa yal na yàlla guddal fan yi dëgëral taxawaay ji kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba déwén incha allah. alhamdulilah. العشية بأزمة وأزمة sur Salam